di gërëm délégué de quartier yi imam yi di gërëm euh, le secrétaire général de la ville de Dakar di gërëm le directeur du cabinet de la ville de Dakar di gërëm les adjoints au maire de la ville de Dakar ak di gërëm le bureau municipal et le conseil municipal de la ville de Dakar wante di beral euh, nuyoo suñu mbokk député yi fii ñëw tey euh, ñëw tey taaral suñu daje suñu daje bi mbokk yi lu ko waral tey ndaje bi mooy ñëw tey installé lu ñuy wooye observatoire citoyen de la ville de Dakar loolu nag dafa nekkoon euh, promesse de campagne ba ñuy campagne dafa amoon lu ñu waxoon askanu Dakar dañ leen waxoon incha allah suñu yàlla may ndam dañu fas yéene samp lu ñuy wooye Dakar bi ñu bokk te ba ñuy campagne Dakar bi ñu bokk boobu askanu Dakar daal di ko fësal tàbb ko jiital Dakar bi ñu bokk Dakar bi ñu bokk bi nag observatoire citoyen bi moo koy firnde mooy bokk waxtaane Dakar bokk xalaat ëllëgu Dakar bokk yéene bokk yaakaar bokk pas-pas bokk Pastef ngir ëllëgu Dakar ak ngir askanu Dakar waxtaane Dakar parce que maa ngi commencé bëgg yàgg nag ci conseil municipal pour ville de Dakar may jaajëfe bu baax a baax le maire honoraire de la ville de Dakar parce que jéemoon na réorganiser Dakar réinventer Dakar te def na ci ay jéego yu am solo madame le maire tamit soo am El Wardini ñëw tamit wax dëgg yàlla def ci kenn kattanam tey képp ku yeewu biir Dakar ñëpp d'accord que Dakar dañ ko war a xalaataat Dakar réorganiser waat Dakar parce que dëkk bu mel ni Dakar mooy lu tubaab di woy métropole métropole nag ku fay yeewu ku fay liggéey kuy dëkk ci métropole day am nu muy mel day am nu muy doxee day am nu muy taxawee day am nu muy jëfee parce que loolu la ñuy xaar ci citoyen buy yeewu en milieu urbain tey mën naa joxe ay exemple yu ndaw tey ñëpp d'accord nañ tey que Dakar charrette noonu du fi daw di Dakar te loolu ñëpp d'accord nañ ko tey tey ñëpp d'accord nañ que Dakar mën na gën a set tey ñëpp d'accord nañ que tey Dakar ñu fi yeewu dañu soxla am ay trottoir pour mën a dem ak di dikk tey ñëpp d'accord nañ que Dakar dañ ko nar a taaral moo tax ñu ne dañuy samp luy di observatoire citoyen de la ville de Dakar dans le cadre du Dakar bi ñuy bokk ñu waxtaanee Dakar ak askanu Dakar kon képp ku fi yàlla dogal yaa xam ambulant nga wala yaa xam dangay ngay dund ci li ñuy woye les métiers de la rue ma bëgg a wax ci leer man bokkuma ci maire yu gëm na ni que Dakar dañu noon a biir nit ñi pour mën a fi am affaire parce que si suma xalaat bu gàtt ma naa jum wante ñu yàlla baaxee ñoom ñoo féetoo lu ñuy woye les métiers de la rue di daan seen doole du ñu sàcc du ñu tooñ kenn loolu la leen yàlla baaxee te ñun dañu noo def suñu kéem kattan mën leen jàppale mën leen gunge ba ñu mën ci gis seen bopp dans la plus grande dignité parce que gëmuma ko am na citoyen bu ñaan yàlla di yeewu di xëy ci mbedd bi moo xam suñu yaay yi moo xam suñu rakk yi yor seen càq-càq di daan seen doole di am lu ñuy wut pour yóbbu seen kër suñu responsabilité mooy mën leen organiser mën leen structurer ñuy mën a gis seen bopp mais ñoom tamit ñu xam ne ni que Dakar capitale la te ci capital lépp dañ koy organiser tey fépp fu ngeen di dem ci àdduna bi moo xam Paris moo xam New York moo xam ay Casablanca ay Marrakech fépp fu ngeen dem ci àdduna bi am na lu ñuy woowee métier de la rue daanaka dafa am ñu nekk ci mbedd bi di fa daan seen doole. am luñ fay for di yóbbu seen kër wante daanaka désordre bu am di Dakar duñ ko gis ci ay dëkk yu bëri damay joxe chaque fois exemple Champs-Élysées nee naa champs nañu mooy la plus belle avenue au monde wala c'est wante tamit c'est la plus grande avenue marchande au monde wante lépp dañ ko organiser lépp dañ ko teg ci yoon loolu nag pour ñu mën a atteindre objectif boobu biir Dakar tey il faut ñu toog bokk Dakar bokk waxtaane Dakar bokk xalaat ku Dakar bokk yéene bokk yaakaar pour ëllëgu Dakar suñu mbokk yàlla baaxee ñoom ñu yor ay charrette par exemple dañ ko déggee noonu man waxuma loolu yoon a ko wax dañu ne yor ab fas ak charrette di ko dawal biir Dakar yoon daf ko tere te loolu dinañ ci def suñu kenn kàttan de façon progressive ba jëlee fii charrette yi rek maa ngi daje ak benn waay mu ne ma maire affaire yi nga commencé ba a yàgg ma ne ko lu ngeen gis ci àdduna waxtaan la kon def nañ at ci mairie de Dakar su ci yàlla àndee incha allah dese nañu ñeenti at ci jàmm ak salaam ci dëkkandoo ak mbokk ci yar ak teggin dinañ waxtaan ak askanu Dakar ba ñëpp mën ci gis seen bopp ba ëllëg suñ fi amee ay gan du ñu am gàcce parce que incha allah ci ay fan yu néew Dakar dañuy waaj a dalal fii le forum mondial sur l'économie sociale solidaire et circulaire du premier au six bii mooy première fois buñ koy organiser fii Afrique ñu ngi xaar lu toll ci ay trois mille et quelques participants économie sociale solidaire ak circulaire ci gàttal mooy lan mooy bépp économie bu banque dul considéré mooy yaa xam da yor benn commerce te sa commerce boobu ci gàttal banque du ko soutenir banque du ko financer. économie boobu nag mooy lu ñuy woowee informel secteur informel secteur boobu tey moom moo yor Sénégal parce que tey daanaka su ngeen jëlee tey juróom sénégalais bu nekk. daanaka ci gàttal ñett ba ñeent ñu ngi yëngatu dans le secteur informel moo xam les métiers de la rue toutes catégories confondues moo tax sànq ma ne lii di les métiers de la rue nous devons les organiser nous devons les structurer mais pas les déguerpir nous devons désencombrer nous devons désengorger nous devons réorganiser notre espace urbain mais loolu yëpp ci waxtaan loolu daal moo nekkoon kàddu yi mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp di euh, ñaanal tamit askan bi même su ci amee ñu ngeen xam ne ni peut-être amaguñu opportunité mën a bokk pour l'instant ci observatoire boobu fépp fu waay mënti nekk képp ku am yéene képp ku am xalaat képp ku am yaakaar ci ëllëgu Dakar ñu ngi lay tàllal suñu loxo ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jërë ngeen jëf